waajal tuuti micro bi. c'est bon. vous. Ça y je peux commencer? Bon. Voilà. Le Sénégal a décidé de s'engager dans une grande farce électorale. Tout le monde a pu constater que le processus électoral manque non seulement de transparence, mais aussi de prohibité. Tout est opaque. Aujourd'hui, les candidats ne peuvent même pas savoir s'ils ont le bon fichier électoral. Personne aujourd'hui ne peut dire quelle est la composante du fichier électoral. Personne ne peut dire comment ont été paramétrées les clés USB qui ont été remises. Et ce qui quand même est révoltant, c'est qu'il est prévu par la loi qu'il y a une commission de contrôle des parrainages. En vous référant à la loi, vous verrez que cette commission est composée aussi du représentant du candidat. Et c'est cette commission qui procède à la vérification pour savoir si une candidature est recevable ou irrecevable. Lorsque nous sommes entrés on a, le président Badio Camara nous a immédiatement notifié le fait que le dossier était incomplet. Cela veut dire que le dossier a été ouvert et exploité en l'absence du mandataire et représentant de Ousmane Sonko, ce une violation flagrante de la loi. On lui a posé la question de savoir Si le dossier est incomplet, qu'est-ce qui pourrait être incomplet Et la réponse a été que les dossiers ont été reçus, les courriers qui les accompagnaient et les pièces annexées étaient aussi reçues, vérifiées par la commission qui a conclu en ce qu'il manquait, en ce qu'il en fait une pièce qu'elle était incomplète. Et après, tout est refusé, que le reste nous sera notifié par écrit en temps opportun. Et quelle est la pièce, quelle Vous ne m'avez pas écouté. Quand je lui posé la question, la réponse a été que tous les courriers et tous les documents qui ont été déposés ont été reçus et exploités par la commission, qui a donc décidé que le dossier était incomplet. Or, cette décision, cette commission a donc été dans une composition irrégulière parce que la loi prévoit que tout cela, cette vérification, devait se faire en présence du candidat ou du mandataire ou du représentant du mandataire. Donc il est clair que la cascade de violations de la loi ne s'arrête pas et qu'il y a une volonté d'aller vers des élections qui, dès le départ, manquent de transparence et qui, en tout état de cause, ne reflèteront pas la volonté de la nation. Et la communauté nationale et internationale qui m'écoute peut vérifier les dispositions de la loi et elle pourra voir que la commission ne peut pas siéger valablement si en fait le représentant du candidat n'est pas en fait présent. C'est la raison pour laquelle je pense que l'opinion publique nationale et internationale retiendra que c'est une force électorale qui a été organisée et qui continue d'être organisée. Ce que nous comptons faire, nous le savons, nous ferons les recours prévus par la loi, nous resterons dans la légalité, mais dans tout état de cause, la souveraineté populaire s'exprimera. Je vous remercie. li may wax moom moo di que addina bi seede na ni que maanaam élection yu ñuy wax du ay ay farce la farce nag xaw ma nuñ koy waxee ci wolof ngeen baal ma ay tappale la te tappale bi ñëpp gis nañ ne que ba yëf yi tàmbalee ba tey ay tappale la justice la mu wax yépp dañ koo jël sànni ko ci maa tey ak doole la ñu wéy matt ne ko Ousmane Sonko du bokk ci candidat yi mu neex ko mu naqari ko mu neex nga ànd ak moom mu naqari leen mu neex réew mi mu naqari réew mi mu neex àddina bi mu naqari àddina bi ci loolu la ñuy wéy léegi nag ci kaw complot boobu sunu dossier fexe nañu ba dugal ko bañ ko dugal li da leen bañ ko yëgee dañoo déterlu léegi nag tey la waroon xool ndax sunu parenage jaar na yoon sunu parenage parenage député la donc day jàll pexe yi moom moo di que ba ñu accès dañ ñu nekk seen dossier motul te récépissé yeeg yëpp yor nañ ko dañ ko teg ci li yoon wax teg ko ci ñoom conseil constitutionnel ci dogal yi ñu génnee nekk bu fekkee ne que lii ak lii am na lii ak ak lii ak lii lay wéy la nga xam ne loolu lañ ne loolooy wéy loolu yëpp jot nañ ko ba ñu dikkee toog ñu waxñu de suite nañu ko seen dossier matul ma ne leen seen sunu dossier matul lan moo tax sunu dossier lan moo matul ci sunu dossier ñu ne ma fekkee seen seen do dossier seen dossier Ousmane Sonko matul te bu fekkee ne que dinañ leen ko yëgal dinañ leen wax lan moo ci matul ma ne leen. yéen membre yi toog dossier complet lañ leen jox mu dog ma ne que président bi dog ma Badio Camara ne que lépp fi indi mu doon ci dossier mu doon ci ay bataaxal yëpp wane nañ ko commission bi réunir na ba pare xool gis ne que manqué na pièce te commission bi mënul réunir te fekk man fekkewuma ko pour que ñu war a daj ji enveloppe bi nga xam ne ci laa def kayit yi dañ koo sele pour que ñu vérifier ci sama kanam ba pare nañ ne alkaati bi kaay ñu yëkkati dafe pour que mu génn ne que wax ji jeex na wante ma xam nekk donc wax ji du ci ñoom kaddu yi ci réew mi la war a dem kaddu bi ci communauté internationale bi la war a dem ñu xam ne que lii ñuy def ay caaxaan la lii ñuy def jaarul yoon doole bii ñuy jaay lii lépp en fait jarul que ñuy muur nit ñi puudar ndax wane nañu ñoom lañu bëgg wane nañu na ñuy demee clé USB yi ñuy joxe gis nañ ne que ñi nga xam ne que yàgg nañu fi ay lu mot ñaar fukki at fanweeri at ñu ngi ci ay élection ñu ngi seeni nit rejeté nañ ko parce que dañu naan que clé yi kenn liiru ko clé yi kenn amul fii ko kenn mënul ne nekk clé bi ñu la jox fii fichier bi conseil constitutionnel yor boobu clé moom lañ la jox kenn xamul ndax fichier clé yi ñu la jox vérifié wuñ ko kenn xamul ndax clé bi ñu jox Boubacar kamara ak clé bi nga xam ne moom moom la ñu jox ay Mbodj que clé yi benn la alors que lépp dafa war a leer mu leer nañ mel ni seetu nit ñi xam la ñuy def xam la ñuy teg seen tànk xam lañ leen laaj ñu mën cee ñu ñu mën cee jaar wante ba tey ji dara leerul lépp jéegoog jéego la jéego boo jéegi ñu génnee dara tegaat gàllankoor sa kaw boo fexee ba jàll ko ñu waat beneen daal gàllankoor ay tappale élection la. nee nañ duñ ko wax alors que la manqué sama dossier amuñu ubbi amuñu droit ubbi dossier bi te man fekkewuma ko ñu ubbi ko sama kanam li ñu war a def moom moo di que foog addina bi xam li xew doole dañuy jaay te xam ne loolu dañ ko fas ne continuer loolu lu am solo la li ñu war a def moom moo di que ñun ci yoon la ñuy topp ci yoon li nga xam ne moom moo ñuul ci soow mi moom moo di que yoon fa mu ne fa la ñuy jublu pour ñaxtu ñoom kott lañ fay fekkaat wante du tere dinañ ko def na àddina seede ret nekk ci ay tappale lañ jëm jërëjëf. jërëjëf maître. ne mooy.